Uras Info Ribari Gao. gaaw te Uras Info l'info à temps réel Uras Info Djanga du xóot te dëggu notre force le traitement de l'info soxna Juma Diouf hein soxna Juma Diouf dañ ah? ma convoqué dig fereeram de di Serigne Mbeng ñoo fa nekkandoo woon maak moom mouvement d'Igène du taxaw aar sunu valeur sunu itte macha allah mu ne moom moo ko teewal soxna Bintaka moom it borom yitte la defe naa doomu daara yi ñu bari ràññee nañ ko jërëjëf doomu Sane Bayka waaw <laughs> yàlla yàlla fay yiw waaye ñu ñaanal kenn balaa ñoo jox usaat ci jigéen dama ko tudd sama xel dem ci muy soxna Ndey Jóob yàlla dafa dogal mu tëdd keroog bi ñuy waajal bis bi rek maak imam Babacar si la dem nañu ba këram mooy jigéen ji ngeen daan gis bu yu mel ni amee moom la ñuy jox ci turu jigéen ñi yàlla dafa dogal mu tëdd def na diir waaye la tëdd tëdd xol ba tëddul kere bi ñu demee rek mi ngi mi ngi nettali xuloo yi muy xuloo ci télé bi léeg-léeg te ay mbiram dafay koy boolee ki aaya mu ne bi ma dégg diw sàngam mu naan bu ñu votee luwaa yi dañuy baale économiquement dama ne ko xanaa xamul ne walillahi xazaayinu samawaati wala ma ne ko aaya bi yaa ngi ko wax mi ngi mel ne soog tey lay soog di wàcc waaw ndax walaakinnal munaafiqiina laa yafqahuun ja moo tax alxuraan lu yéeme la ñu ñaanal ko ci kanamu kilifa yi ñu sàkk ko yàlla na ko yàlla yëkkati ndax nag wax dëgg combat bi soxla na ko lool ndax ci côté jigéen ñi lim fa man moom doo nga ko fa man yàlla na ko yàlla dëgëral te wéral imam bismillah bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp góor jigéen mag ndaw presse bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teewal mouvement yi association yi ak mbootaay yi ñaanal ñiñ teg ci suñ kanam muy sëriñ Babacar Mbuub ak ñi ko wër ñu gàcce leen liggéey bu rëyee nii waaye nag ñu ngi sant suñ borom subhanahu wa taala mi leen jox lenn ca matam nga ba lañ leen euh, dénkoon sasoon leen ko ñu am ci doxin wu mat wii yàlla jëm kanam ndax dañuy doy loolu mbokk yi jiitu wax rek ndax boo gisee ma waxoon sëñ Maxtaar ne ko journée bu historique la boo xam ne mu ngi door a am ci Sénégal considération yi may bëgg a wax moo tax ñu ngi door a gis mouvement boo xam ne dafa ëmb lu toll nii ci ay mbootaay ëmb mbootaay diine yi moo xam tariqa ya la association islamique yi la ëmb syndicat yi rawatina nag ëmb ndaw yi moo tax ma ne lii lu historique la lu historique la mooy bu njëkkoon sunu mag ñi lii ñuy bañ ñoo ñu ko gënoon a bañ foofu waaye dañoo amoon njort yu rafet ci ñiñ ko seqal parce que yooyu masaan na dëgmal combat bu mel nii bu ñu délégué kenn ci ñoom mu nekk seen porte parole wala seen secrétaire général yëkkati seeni tawat jox ko mooy dem teg ko ca loxol ndaw ay cëm réew ma am ci ñoom yaakaar ju ñoom dañuy daal di ubbi seeni tiroir def ca biir tey nag foofa ñu jaaroon nag suñu mag ña moo ñu yee moo waral ñun ñëpp ñu àndandoor ne njiitu mouvement yeeg mbootaay yëpp nañu ñëw gunge loi bi bañ teg ko ci loxol député yi xamal leen ne nag ñoo yéen insha allah ba ca cotta tega kon lu historique la lu historique la ci euh, moment yi nga xam ne li ñuy tuddee la franc-maçonnerie mondiale ak yàq-yàqam bu doonoon société bi garab la dañ naan max ji dugg na ko ñu sant nag yàlla subhanahu wa taala ci projet de loi bi fi ñu ko jaarale ba ñëpp adopté ko daanaka kilifa yi lay njiitu mouvement yi jeunesse bi man jàpp naa ne lii bu demee assemblée nationale député yi manifesté woogut ñoom ñëpp danañ ko wote incha ndax xam nañ ne lii demande sociale la loolu moo tax ma jàpp ne lii lu historique la loi bu nar a amee nii victoire ci sama yaakaar ju rafet mu ngi door a am ñu ngi jël a jërëjëfal ñëpp nag tey xam ne ne combat la boo xam ne day door a commencé jikko yi dafa yaatu jikko politique yaa ngi fi jikko social yaa ngi fi jikko économique yaa ngi fi xeeti jikko yi nga xam ne yëpp ñoo ruur société bi mouvement bi jógul pour jël benn rek muy LGBT bàyyi yi ca des lii tàmbali rek la yàlla yëpp àgg ñu ngi jërëjëfal ñëpp yàlla na suñu borom subhanahu wa taala nangul ñu sunu liggéey te sottalal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh mii nag xam naa ne moom yàkkamte na lool fi mu ne ak <laughs> am ndaw am ndaween di day bëgg su ko defee ñu maam Maxtaar waa nga ñëwee nii imam mu toog noonu rek ci ci waaw su ko defee bu maam Maxtaar daanalee maam Maxtaar nag xam naa moom li mu xam ci ànd sàmm jikko yëpp ko fi bëggee wax nag moom timis danañu fekk moo tax dënkal nu ko dënkal nu ko su ko defee bu noppee ñu jox Serigne Bassirou Mbacké euh, mu joxe kàddu ñu jox nag Serigne Sidi Ahmed mu tëjal ñu jotaay bi incha allah waaye Serif Abdul Muttalib bu Pikine bi ñu lim délégation yi dañ ko fàtte euh, yebal nañ fi délégation délégation bi Serigne Amadou Seck ak Serigne Mouhamed Seck ñoo ko jiite Sharif Abdul Mutalib mu Pikine keroog bi ñu fay dem dañu fekk mu tukki waaye rakkam Sharif Ali lañ fa fekk biñ ko gaaralee loi bi mu ñaan ji def ne bis ba incha allah délégation kër gi dana fa ñëw moom it def nañ délégation ñëw fii ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen waaye ndaw yi nga xam ne ñoo nekk université yi ñu sant leen gërëm leen ndax xam na ñoo xam ne ñu nga université di jàng waaye luy valeur ak diine ma nga ca ñoom dafa séenéwuñu mu yàqu ba tax na ànd sàmm ji yi am na cellule boo xam ne ma nga biir université ay ndaw di ko doxal di sensibiliser seeni morom di leen jox document yi leen àndi sàmm ji koy di partager ak ñoom ndax ay jàngkat lañu ay gëstukat lañu sama benn oustaz oustaz Cheikh Tandiang li ma farakas néew ci musalawul xadis moo ma ko jàngal moo ma doon wax ne seen benn jàngalekat moo daan wax ni bul nangu rek ñu takkal la ay lonet booy jàng maanaam li la jàngalekat bi di jox jéggi ko nga fexee xam moom fam lay jëlee lim lay jox loolu it bi ma demee Thiès université bu Thiès di waxtaan ak ndaw ñi ci mel nii waxoon naa leen ko ne bu leen nangu rek li leen di jàngal université ne mooy xam-xam mais nangu leen a gëstu lu bokk la liñ leen di jàngal te yii bokk na ci agenda yi ma ne leen ngeen ñemee liir ànd sàmm ji koy pare nañ pour partager ak ngeen ay document yu ngeen soxla yi sëñ Babacar di tudd yi ñeneen yor lu ci nekk ay ndaw bu ñu ci yemee gëstu ko kenn du leen yi jug leen ñooy jugal seen bopp xanaa ku yëgul li xew mais ku yëg li xew kenn dootu la wooti ba tax na Abdoulaye saw moom moo leen fi teewal ñu jaajëfal ko bu baax a baax ak waa université see Anta Diop yëpp bi wajal bis bi rek amna liggey bo xamne xam alhaji ñoom lañ ko chargé woon ñooñu ko doon defal alxaaji ka baye ko momi ba malem odar mi ngi fi euh, sëñ muntaha kan sëñ muntaha kan mo fi teewal al alxaaji ahmad dem bu sookoon ñoomit bu yàggu rek la fa coordinateur ababakar bu dem ñu wone sen engagement ba fa sax benen bis bo xamne uniquement dañ koy organiser o wa dekk ba wa ngir ci li xew ndax nag am nañu sori ñoo xam ne yëgaguñu li xew donte ñi jege am nañu yëgagul mais rawati nañu sori kon sëriñ mu taxaa kan jërëjëf boo demee nga nuyu ñu sëriñ bi ziaral ñu ko bu baax a baax. waaye al imam Mouhamed Habiboulaye Diouf moom it mi ngi fi di njiital jamiyatu ifsha islam li xidmati ifriqia wal islaam moom it mu teew ci turu association bi ñu sant ko gërëm ko kon maam Maxtaar Mansour Mbuub momit mi ngi fi ñu sant ko bu baaxa baax gërëm ko ana imam aboubacar fay da nga tuddu mbub rek sama xel dem ci waaw danañ ci ñëwaat ak mom inshallah allah ñu amna mbokk mo xamne faaw ñu sant ko gërëm ko a ah, dafa waaw def kotu yiw la moo tax bi ma tuddee sama xel dem ci adam ak may joxañ léegi na nee na jarul ñuy tuddu dama fàtte tur bi rek waaye na tuddu de <laughs> ah waaw kuy def lu baax da koy si siiwal nit ñi xam ko xam ngeen ne bu ngeen gisee baas yi xaalis bu bari la yeneen ak yeneen fere yi métti la bu amee ñu ci nekk di ci jàpp boo gisee ñu naan lobby yi am na doole doole yëpp dërëm kese la du leneen dërëm kese dërëm a leen may ñu yóbbu fitu nit ñi dërëm a leen may ñu yor ñu jàpp ne tey ku leen tudd dee ay laal dee lañu te duñu dara il faut ñu minimiser leen bañ xam ne duñu dara sénégalais yi nu ñu fee nekk wax dëgg fa yàlla am kilifa yi nu am am ngëm-ngëm yi nu am ba noppi tout le temps ñu nuy menacé ci aw nit dañoo bari doole dañoo bari doole mais ñun ñoo ñàkk doole ñun ñun amuñu doole <laughs> ah wax dëgg man damaa xamul luy doole ah ñun ñoo leen doole ñu yor bañ ko yëkkatee ci jamonoy réforme ba 2018 la ñaan non a franc-maçon yi dañoo bari doole ñooñu ñu doon wax naa naan dañoo bari doole ñu néew doole ñi jàpp ne dañoo néew doole ñoo leen dàq bañ fomm seen réforme bi ñu waroon a amal fii ci Dakar ndakaaru la ñu waroon def mu nekk capitalu franc-maçon ànd sàmm ji koy jug taxaw taxawalaat collectif tuddee ko collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité def suñu tournée dem suñuy kilifa niñ ko baaxoo di def ndax seeni yi suñu doole seen encouragement yi suñu doole balaa ñoo def dara buñ demee ba tàllal suñuy loxo bañ def li ah bu gaynde taxawee nag ñu ruux loolu la gëm moo tax bi ñuy def jëmmarloo franc-maçon yi tamit dañoo dem wax ak sunuy kilifa yëgal leen li xew ñu ñaan ñu jóg taxaw taxaw ñoom ci plateau yi dajeeg ñoom fu nekk encaissé nag franc yi lu nañu yàq ñu ko génne ñan ba ci journal Le Monde journal Le Monde bind pourquoi ñi war a télé Rihanna mu ñëw Sénégal war a télé yi ñëw Sénégal keroog jour bi ñu wootee journée bi ñu war waxee ak ñoom ca même jour ba la jour la la la loge bu France génne communiqué nu mu tuddati Mame Makhtar. le grand orient de France le grand orient de France. keroog Mame Makhtar Jamra mii ca conférence ba di boobu ñu bind nga xam ne même jour ñun bi ñuy dajee la bataaxal bi génn keroog moo ko liir ci kanamu mbooloo bi ne ñun suñ daje bii ak suñ mouvement bii ñu am néeg lii ñu taxawal loge maçonnique ba gën a rëy ca France bind nañ di ñu menacé 2008 mm-hmm. 2018 kon 2018 2018 de ñu liir ko ba mu jeexal ñu soog di tàmbali dal ci seen kaw wax leen ne fii Sénégal la du réewum faramason du réewi góor jigéen wax ak ñoom bañ xëy ne leen activité bi te ñu dem pour wax leen ne du ñu laal dee wa maa kaana li nafsin an tamuuta illaa bi isnillah ah waaw man lam yemut bi sayfi rek maata bi xëy ba tax na am na yoo xam ne nag ku mag ragal waaye gannaaw ñun magaguñ nañ ñu bàyyi rek. <laughs> dañ comprendre ku mag moom dara ji dafa seet waaye am na loo xam ne nii ndaw ñi danañ ko taxawee bu soobee ma te wéeru ci mag ñi nag incha allah maam waxtaan ah bi nasrihi wa bil muminin alladina qaala lahum annaasu inna naasa qad jamau lakum faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil loolu dong la laay jooju nee naa dama koy fàttali lu bari ndax dafa tontu yi xew tey te démb la woon ndeke. Uh-huh. wala yaxshawna ahadan illa illa allah wa taxsha naasa wallaahu kon laay yooyu yëpp wax dëgg fa yàlla wàcc leen di ko jàng ñu koy raayoo mais pour ñu koy tudd la. maam. Imane Cissé waaw bu jaamal moom it waaye jaamal yi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين وسيد الآخرين خاتم نبينا وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المختار لما xamul nu ma da nga di sama tërandoo wëlbati ko nekk sama ustaas nekk suma ilimaan parce que wax dëgg yàlla kàddu yi tedd yi ji sànq rek matal na lépp aajowul woon sax nga di ma jox kàddu waaye dama xamul nu ma lay def ndax ñi sañu ma laa gàntal dara ndax sama kilifa nga euh, dama yaakaar ne nag li ñu war a bañ a def mooy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax lii imam Alioune Badara Ndao wax na ko nee na c'est un jour historique maanaam bés boo xam ne dañ koy marqué ak ponk pont bu rëy daaj ko ci taarixu Sénégal euh, firnde ji nag mooy suñu borom buy defar day mel ni ku yàq ndax oustaz Makhtar Sarr junj na ko léegi li sabab lii bokk na ci suñu jàmmarloo ak formation yi en mille xam nga booba ñu ngi meloon nii suñu borom day yàq ndeke mu ngay defar ndax ñoom contrairement ak li fi amoon en 1985 boobu benn loge maçonnique rek la ñu woon jàmbara jàmmarloo woon ak ñoom yàlla def ci ndam ba ñu gagné leen mais bii 600 loge loges maçonniques d'Afrique et de Madagascar ñëw ne par force dañuy def congrès le 2 et 3 février 2018 fii ci King Palace ci la ñu jóg nag daal di doxal loolu ñu ustaas yi jàngal wa amruhum shura baynahum ñu daal di dajee waxtaan mu daal di am kuréel bu ñu tuddee non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ñu def ay réunion yu bari ne lii nañ ci teg suñu bàkken parce que boobu amoon nañ ay information yu wér ni ñoom ñëwuñu rek yem ci congrès dañuy ñëwoon pour def propagande pour jàllale une idéologie maçonnique bëgg xajamal liggéey bu rafet bi fi mag ñu baax ñi bàyyi loola waraloon na am na seen benn nattangoo bu ma dul tudd ndax xam ngeen ko lu ne la ñu yàq naan nous sommes des intolérants xanaa ñii dañu fàtte ne que le Sénégal est une démocratie qui consacre la liberté expression et association ñu tontu ko ne ko waaw d'accord y a la liberté expression et association du nangul ko ko formation yi ne am nañ droit daje léegi bu dee démocrate nga ñun itam xanaa di nga ñu nangal en tant que croyant le droit joxante loxo seq nga nu lu rafet li fi mag ñu bax ñu bàyyi pour sam ko ba ku ko bëgg xajaman nga bëgg ci xop suuf ak ko mëna doon lobby homosexuel lobby maçonnique ñu jóg jamarlo ak yow mu jaral ñu ne am nañ ci droit wala amuñ ci droit kon lolu mo doon suñu taxaway yalla def ci ndam lu reuy ndax bi état bi démé ba gis né y des risques de trouble à l'ordre public parce que am nañu jël cadre ci ñun ci média média yi wax wax yu grave ci le président Macky Sall la jox ndigal le préfet de Dakar Alioune euh, Badara Samba mu daal di xaatim arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2018 interdire lépp luy xeetu congrès wala séminaire d'obédience maçonnique mu nekk ndamu ummatul islamiyya yëpp ci la ñu toog ñun ñëpp nag daan ne GIE ndekete mbooloo mooy doole ñu daal di dem nag ca daara oustaz Adama Seck ci Parcelles que nous lii foog ñu wéyal ko bañu fa demee nag fa lañu soppi tour bi dindi non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité tuddee ko ànd sàmm jikko yi boobu bëriwuñu woon 34 rek lañu ñu woon mooy màgg di mag di mag ba dégg ngeen euh, ni ko sëñ bu tënkee sànq ñu ngi ci 141 organisations. té baax nañu léral pour ñi ñi bëgg a dëkkal fu ñu dëkkul ñu une organisation d'intolérance d'intégriste yaatu na ba nga xam ne même des leaders yo xamné ne ñu ay daïra daayira jiitewuñu ay association islamique ñu ngi ci biir ana Dame boy c'est un leader syndical mu ngi ci biir ana Maître Massokhna Kane c'est le leader de SOS euh, consommateur une société consumériste mu ngi ci biir ana le professeur Malick Ndiaye sociologue là, c'est le euh, coordonnateur euh, du du du cercle des intellectuels du Sénégal mu ngi ci biir ak ñeneen ak ñeneen amna na ku yore benn bu askano ci jangou bi ñu ngi ci biir ànd sàmm jikko yi te fu waay mënti ne ndéem nit ku équilibre nga war nga ittewoo sàmm jikko yi alors bu ko defee nag ñun ñoo daje ci suñu biir seet koo xam ne doyloo nañ ko ci teg tegginam ci yaram ak ci xam-xamam muy imam ko mbub ñu jiital ko moo tax toujours dama koy wax naan yow Ababacar Mboup duma la gërëm ndax aw ñey ken du ko ñaanal yalla na nga reuy ndax reuy na ko nopi ma ne yow li la ñepp war di defal tous les jours di la firdaawul ak di la ñaan ndax ababakar buub bañ ko mandaté ba légui amatul vie de famille tok na fi juróom benn weer yo xamné ne gis muy bari wu 45 département yëpp wër mission bi ko directoire and sam ji koy def nako ba def ci lu wess suñu ñort amul ku dul kilifa diine bu mu toogul ak yow ba mo jur li tay ñu wara jox tëggaat l'article 319 du code pénal ngir mën a yokk daan yi nga xam ne ci la ñu gàll ci loosu tooñkat yi tooñkat laa leen tuddee ndax ci suba dafa am benn journal bu ma interpellé ne ma ah yéen day est-ce que seen daje bi amatina sens ma ne ko lu tax mu ne ab ah, déclaration bi ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall def nee na l'homosexualité ne sera jamais légalisé au Sénégal ma ne ko looloo mu ne waaw ma ne ko ndaw su baax la ndeysaan te bokk ci famille boo xam ne dañuy ittewoo sàmm ay valeur ak sàmm diine waaye fii dafa tardé ne ko loolu c'est dépassé waxatuñu wax yi ça ce ne sera jamais légalisé au Sénégal Macky Sall wax na ko fukki yoon ci Obama jàkkaarloon nag Justine Trudeau mois de euh, février bi passé waxaat ko fa loolu ñu loolu ñun loolu moom c'est dépassé ñun dañu ne tooñ yu tar yi kuréelu borom ñaari tur yi tàmm di tooñ dafa war a dakk agenda bi état bi yor di leen jàppale ba mu jaral ko mu jël ay récépissé jox leen dafa war a dakk ci gàttal ñun criminalisation la ñu bëgg ndax mën a tooñ weesuwul mënuma lim yëpp parce que oustaz Makhtar Sarr ak may chronomètre dama siy juj ci ñaar mën a tooñ weesuwul nga fopp euh, guddi gu teg gu mel ni guddi nag nabi ñu di ci màggal juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi nga jóg nga daal di jóg takk fa fukki sëy ak ñaar au lycée Ibrahima Diouf de Kaolack keroog bu du woon gaawaayu la commissaire Bokar yi te ñu ngi dellu di ko sargalaat deret ju bari dana tuuru ndax taalibe Baye Niass yi dañu fàq ñëw pour jëflante kook ñoom parce que fi ñu defee ceen caay-caay bi soriwul suuf su tedd bi Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass tëdd loolu du tooñ ba ñu demee ba août 2019 parce que sànq ba tey maa ngi dégg ñuy wax wax yi eh, sànq ba tey ñu ngi dégg ñuy wax wax yi borom ñaari tur yi waaye borom ñaari tur yi jigéen ñi eh, au au mois d'août 2019 gis nañ scandale bi amoon fii si yi la woon ah. dañuy jékki-jékki rek mu am un groupe de gangsters lesbiennes mat nañu vingt ñëw songo benn kër di dóor yi xeer di toj ardoise yi di daj yi parentère benn as ndaw moo fay sëy ancienne lesbienne bu tuub la dafa dem ba xam ne lii mu nekkee musiba la ngor bu ko diine bu ko mu dem uti ilimaan bu ko jubalee ak jëkkëram mu dellu ci néegu seen ñooñu fekk foofu bëgg ko fi naal jëkkër gi bëgg intervenir ñu bëma ko brutaliser ko waye jeune quartier bi ak délégué de quartier bi def fula bo police ñëw amna na lesbiennes yu bari yu daw mais amna na ñu ñuy jàpp y compris sen chef bi bañu ñu di atté yeen ñi ñëpp yéen tribunal keroog keroog lañu dégg lu yéeme bi ko président président tribunal bi neko wa yow ndaw si yow mi jité cette expédition punitive contre kii nga xamné ne lesbienne la woon ni yéen waaye moo dem ba waxtaan ak njegeen naayam xelam yadd ko mu dem ci ilimaan mu tuub tuub dellu ci négocier bi ngeen dem di ko song bay def expédition punitive contre moom waa lu waral loolu ndaw si xool président tribunal bi ak bët yu wow koŋ ne ko waaw sama coro la woon kon su ma bàyyee dellu ci jëkkëram jàpp naa ne daf ma trahir ba Sénégal jëm ba pare ñu ne bu kenn wax tooñ yi kenn mënu ko lii bi ci gën a dégg dayoo nag te foofu laay mujjee ci coon yi parce que tooñ yëpp noté nañ ko mat na 23 mooy bërëb bu tedd bii di grande mosquée nga xam ne suñu borom fonk na bërëb yu mel nii ba moo wax si suuratul jinni wa anal de lillahi jàkk yi sama néeg la gardien bi toog 3 heures du matin génn mel ni ku jommi ñu ne lu nit ñi ñëw fekk ñaari borom ñaari tur di di ko takk seen tubay ndeke dañu doon sëy ca bërëb bu tedd boobu leen loolu du tooñ loolu waral nag euh, ñu wax ni euh, nasaxaay bi état bi wane ci kaw tooñ yi borom ñaari tur yi di tooñ xaw ma ku koy seetaan de ñun duñ ko seetaan parce que bu ñu deful attention dana jur ay dérapage yu grave yo xamné ne du leen ci nettali dara ndax xam ngeen am na deux pays de la sous-région yu may baña a tudd ndax damay bañ a tooñ nasax bi état bi nasax taxna bo population yi ci kaw tooñ di borom ñaari tour yi di tooñ tous les jours ñom dañuy jóg régler ko seen bopp di façon bu ñaaw moy dañ leen def lolu ñuy wax le supplice du collier góor jigéen bu ñu japp ngay def yu mel non takka la ba nga ne cocc solo la ay pono ba ci bandi soti ci central ko une mort atroce loolu ñu mo am fi kon nak état yaccaral gi mu yaccaral c'est dangereux ndax sénégalais yëpp mer nañu ndax toñu borom ñaari turi yi dafa teklo té ëpp na lolu waral nag and sàmm ji koy jóg jël responsabilité ñu né prof ndol la bi goor jigéen yi daan jaar ba toñ bu ñu mënti toñ ñu fexé ba génn ci nañu fatta prof ndol la ndax bu leen fàttaliku kaw la seen tooñ boobu di takk sëy fukki sëy ak benn guddi mawludul bi ba commissaire Bokar lii jàppale dañuy toog ñaari fan ñu libéré leen yéen takk der yi euh, taskati xabaar yi ngeen daw ci ministre de la justice bi fi nekkoon ne ko waaw borom ñaari tur yi tooñ bi ñu tooñ nu mu réyee yow ministre de la justice nga joxe ndigal pour ñu libérer leen def ñu sax ñaari fan xam nga lu mu tontu waaw article 319 ne ne cite pas spécifiquement le mot homosexuel prof la bobu nak nga xam mo moo jur tappale yi am yépp ba seen tooñ yi tàmbale ba légui mom la and sàmm di ko ñew tay pour fatako waxtaan nañ ci nak avec des professeurs de droit waxtaan ci avec euh, d'éminents juristes nous avons ñu conseillé si nous leen fi loi procédure de continuer euh, député euh, Ali Soare leeral na ko kon da ngeen loi bi fi ne article 319 la loi tapale, parce que nous avons condamné les actes contre nature c'est vague Nous avons jël une loi nous avons cité nommément les infractions kon désormais article 319 l'article 319 du code pénal sénégalais criminalise l'homosexualité criminalise le lesbianisme criminalise la zoophilie moi je ngeen euh, euh, euh, c'est une affaire du peuple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 dans l'Assemblée nationale de l'Union de tukki en tout état de cause le bureau doit se réunir pour examiner la proposition de loi et admettre son que que c'est recevable Les procédures procédure expliquée dans l'enco. donc on va suivre Euh, ba d'une plénière à la plénière le peuple est invité parce que c'est ouvert de ñëpp mën faire une plénière euh, assemblée nationale règle règlement intérieur le bloc, On a le droit à faire quelque chose. Euh, loolu loolu règlement intérieur parce que les députés sont des envoyés du peuple loolu euh, donc là on continue Serine Ababacar ah waaw Serigne Ababacar nee na nañu bàyyi làkk français léegi <laughs> ça ne dépend ça ne dépend mais c'est vrai qu'il faut quand même euh, s'adresser à à la communauté internationale ah, pour leur dire, moi-même, j'ai reçu beaucoup de, coups de fil depuis quelques jours euh, pour nous demander euh, pourquoi euh, cette loi, pourquoi cette proposition de loi. Ah, nous l'avons déposée ce jour, 22 décembre, à l'Assemblée nationale, ce sont, selon les formes requises par le règlement intérieur, donc auprès du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, président Moussa Cette proposition de loi elle est recevable. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Elle n'a aucune incidence financière. Elle est conforme à la loi puisqu'elle modifie l'alinéa 3 de l'article 319 du Code pénal modifié. De ce point de vue, il n'y a aucun problème de recevabilité et donc la procédure doit suivre son cours. Cette loi, cette proposition de loi est issue du peuple. Euh, c'est... Euh, SAM MUDICO, une, association, ou en tout cas une plateforme d'associations sénégalaises euh, euh, de, tous bords, qui a pris l'initiative, compte tenu de l'existence dans ce pays d'une démarche rampante pour nous imposer contre notre volonté l'agenda bogué à travers un certain nombre d'actes qui ont été posés à partir de la Constitution, euh, où on a introduit les droits d'autrui, euh, à partir du code de la presse où on parle de l'orientation sexuelle. Euh, euh, le mot sexe est banni des permis de conduire, il est remplacé par le mot genre. On y a même des, poussées pour que ça rentre dans l'éducation nationale. Et donc, face à cette situation, ils ont pris les responsabilités, effectivement, pour rencontrer l'ensemble des califs généraux de ce pays, les imams, les associations islamiques, la société civile, Yamra, ils ont rencontré tout le monde l'Église, le bois sacré, tout le Sénégal est derrière cette proposition de loi. Il est bon, il est bon que les États-Unis, il est bon que le Canada, il est bon que la France et l'Europe le sachent. C'est une affaire du peuple sénégalais. Nous avons, nous avons nos valeurs et nous allons les défendre à tout prix. Et on ne négociera pas sur nos valeurs. Vous allez entendre tantôt, on nous dit, oui, vous aurez plus de financement venu de l'extérieur, mais tout cela, c'est falaise. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. D'abord, pour commencer, en réalité, nous avons suffisamment de financement si on veut véritablement s'occuper de notre économie et de notre développement. Ça, c'est clair. Ensuite, euh, les financiers, les économistes dans le monde savent que l'argent là, ils vont là où ils ont des intérêts. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Et donc, il y a beaucoup de pays en Afrique, euh, il y a 72 pays dans le monde, il y a 32 pays en Afrique qui ont corsé leur législation par rapport à ça. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on perturbe les Sénégalais, il ne faut pas qu'on perturbe la diaspora en pensant qu'on va mettre la pression sur nos concitoyens qui vivent en Espagne ou en France ou ailleurs. Cela n'a absolument rien à voir ceux qui ont des intérêts économiques au Sénégal viendront et c'est à nous à défendre nos intérêts et ça commence par défendre nos valeurs. Et sur ça, on ne va pas négocier, il faut que ça soit très clair vis-à-vis de la communauté internationale. Nous avons déposé la proposition de loi parce que les gens hésitaient en pensant qu'on n'allait pas le faire. Ça a été fait, c'est clair, net et précis. Et la procédure suivra jusqu'au vote euh, par, la, séance plénière, ce sera mon vote public où tout le peuple assistera. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. bismillaahi li ghayri am leen di te donc ay discours xaju waaye li ma bëggoon wax rek mooy yàlla wax si alxuraan wasbir alaa maa yaquluuna واهجرهم هجرا جميلا نعم. ان لدينا انكالا ظني والمكذبين اولي نعمه فمهلهم قليلا سنت مارشي بلول باي لين يوخ لين نيه يين فيغا وور فيتي رك نين فيتي با منو ناس يوخ لو غودو مي لي مي بن بس دما ديم كندا ني ووما بو ما ديف ليفي دو بن زوليه شي احمد تيان بوغا خاني لي موم لا ني تخاو سي مونريال ñëpp nga fa ñaseen yeeg ñëpp nga fa bi ma ñëwee ma waxtaan importance oeillet boobu importance indi seen ay doom ñu tënk leen si li nga xam ni mooy diine islam wax si lu yaatu yaatu ndax yi dem benn bés may dem si ngénte taw sëñ mu lay si mu am benn soxna ku may xool di ma xool ni may di yow yaay sëñ Mansour bi ñëwoon Canada yaa 15 jours mu ne waaw mu ni ma xamoo sax li nga def ma mu ni ma sa waxtaan waa ma ne ko waxtaan wi lan la mu ni ma ñun duñu am problème ak sunu ay doom école yi li leen di jàngal mooy tey mën nga sëy ak sa frère léegi xale bi jigéen la su ko neexee mu nekk góor góor la su ko neexee mu nekk jigéen bàyyi mën na sëy ak doom bu jigéen mu ni ma loolu lañuy jàngal xale yi en sept ans si école yi te amuñu beneen idéologie bu contre loolu moo tax ku mel na yow su ñëwee waxtaan waxtaan yi nga waxtaanee dañ si sant yàlla pour wax leen ni rek affaire bi du fii kese ni ngeen bàyyi sunu doom yi nekk dans la diaspora ñu leen wax lu nga xam ne ñu ngi koy gëm kii nag comme ni nga ko waxee rek bataille la bu nga xam ne bii mën nañ si wax lu bare bare bëgguñu dugg si ay détails man ndax laa dëkk falaa laa juddoo fa laa

Nous sommes vos représentants dignement élus dans des élections démocratiques. Les lu moo xam ne euh, peuple bi bëgg na que ñu loolu moom fa bàyyi te loolu la défendre di ñaan si biir di ñaan si biti am na nu nag yaakaar si mi incha allah bépp taxawaay bu ñu war taxaw daan ko taxaw ba ngeen yëg ni taxaw wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf si su ko defee kon sëriñ Babacar Mbuub mën nga toog nii rek waaw ñu ko ci micro yi. wala mën naa def naa la noonu. toogal toogal jarul déplacé sëñ bi toogal jarul déplacé man maay déplacé. toogal toogal toogal. su ko defee kon sëriñ Babacar. xam nga juróom minute rek résumé ñu ñu dem julli ji sëriñ si euh, kilifa yi defal nu ñaan incha allah sëriñ Mansour jërëjëf kàddu yi rafet na euh, dalal na xel yi tamit tabarakallah jazaakumullah wan naa xel bismillah euh, suñu kàddu ci sant rek lay jëm ñu ngi sant yàlla ñu ngi delloo di sant yàlla yi tamit cant boo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di julli ak sëlmal di ñaan borom bi dolli ay xéewal sangam bu sang bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam di sant suñu kilifa yi jiital ci xalif généraux yi ci taxawu gi nga xam ne taxawu nañ ko processus bi ba mu agsi fii tey jii di sant mboolem Amir association islamique yépp seen taxawaay rafet na lool foo ko takk wees di sant société civile bi nga xam ni ñoo ngi accompagner processus bi di sant église bi euh, démb rek jokkoo naa ak secrétaire particulier bu cardinal bi di sant aussi euh, bois sacré bi le roi de Souy mm-hmm. bàyyiwuñu benn couche ci Sénégal koo xam ne ñoo koy sant lii nag journée bu historique la lu am solo la ci askan wi xam ne ni ñu tëggee réew mi république la lu ñëpp bokk la lu ñëpp bokk nag des ci diisoo des koy penco ba tax na mbir mi nga xam ne sénégalais yi bañ nañu ko li ci jaadu te yanu ci maanaa mooy ñu légiférer ci ndax bu dul loolu askan yi dana jóg fajal seen bopp te loolu mën naa yëngal am réew loolu mën na indi fitna mën na indi jiyee kon nag ñun li ñu waroon a def def nañ ko askanu Sénégal it li mu waroon a def def nañ ko waaye tamit rafet naa njort fii mën a wax ni député yi tamit incha allah ñoom liñ ci war a def danañ ko def ndax seeni nattangoo jël nañu proposition de loi bi ñu ànd ak ñoom ñu déposé ko. waaye xam na ni ñañu fa fekk seen nattangoo bis buñ ca yegsee rafet nañ jot ci ne ñoom ñëpp danañ ko danañ ko voté ndax bu ñu fàttee ni ay sénégalais lañ ñoom bu ñu fàtte ni boroomi njaboot lañ aussi bu ñu fàtte ni boroomi mbokk lañu ci réew mi kon lépp luy indi ak dal ak jàmm ak jëme réew kanam loola jàpp nañ ne moom mooy seen yitte kon loolu ñoo ngi leen ci sant ñoo ngi leen ci gërëm di leen xaar ci loolu yi tamit

léegi nag ñoo ngi xaar sunu mbokki député yi incha allah rabbi lii liñ ci war a def ñu def ko te loolu ñu ngi koy séntu ci ñoom. di wax rek it euh, président de la république le gouvernement ci moom mooy le premier des sénégalais mbir mi ñor askan wi man jàpp naa ni moom la war a gën a ñor fi mu nekk nii. ndax yaakaar naa ne fu askan wi tiiree rek foofu la war a jëm fu askan wi jublu yi tamit foofu la war a jëm kon ñoo ngi koy woo itam ci. lim ci war a mën a taxawee mu taxaw ko ci yéen ba askan wi xam ni féete na ak ñoom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu allahuma ya allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan tunjina biha min jamiil والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع حرات الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à temps réel. URAS Info. Django du te Notre force, le traitement de l'info.